dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci dossier Hiba Thiam di xale bu jigéen bi ñàkkoon bakkanam foofee ca Almadies ni ki weeru avril gi ñu génn de police bi di wuyoo ci turu Lamine Diédhiou dañ ko ci mbiru faatu Hiba Thiam ab liberté provisoire ci kanamu doyen des juges d'instruction bi lee xibaar nag ñi ko xamle moo journal bi di Les Échos ci parution bu mercredi gi ñu nekk ci fàttali nag bis bi nga xamante ni ci la jéeji am maanaam ci la Hiba Thiam daldi ñàkk bakkanam ki nga xamante ni moo di policier bi nekkoon en service foofee ca commissariat central bu Dakar di wuyoo ci turu Lamine Diédhiou moo daldi escorté woon ci moto bi nga xamante ni doon na ko dawal kii di Diadia Tall ak Iba Thiam ba foofee ca Almadi ci jamono jo nga xamante ni bi dañ ko mettroon en vigueur escorte bi nga xamante ni nag Lamine Diédhiou di policier bi escorté woon na ko taxoon na rek ba Iba Thiam ak Diadia Tall daldi contourné woon boobule couvre infraction wala sax violation ab état d'urgence di fàttali nag mbir yi mi ngi xewoon ci weeru avril gi nu génn ci ab soirée privée boo xamante ni ki di Dame Amar moo ko organisé woon foofee ci Almadies ci jamono joo nga xamante ni ab état d'urgence mettre nañ ko en vigueur ngir xeexoon jàngoro coronavirus gi nga xamante ni nuyoo woon na ci noone nag ci la Iba Thiam dal di ñakkoon bakkanam ci ab overdose jërë ngeen jëf fii la ñu yam